d'accord su ma war a quart de finale man dimanche incha allah. ban équipe mooy sa équipe. si Daaru Salaam laay football man. non non maanaam. adduna bi ban équipe mooy sa équipe. championnat yeeg yooyu noonu wala nawetaan ak ban équipe mooy sa équipe. man nag ci laay seetaan waa Jalle Ali benn joueur bu nekk Tottenham. ok moom dafa maa neex. moom mooy sa joueur. mais sa équipe sa équipe préférée ban équipe la. kon Tottenham la ndax moom fa la neex. mooy sa équipe mën nga ma limal 5 joueurs Tottenham. Harry Kane ak Sinoa bi son xaw ma la waaw. ak bërier ak kan gaa yi koy jàppale gaa yi bàyyi leen ko mu tontu waaye. garab beel dellu na fa garab beel waaw. garab seeraan naa mu dugal waaw. mu la dugal sax. gaa yi bàyyi leen sa waay tontu waaye. kan mooy sa joueur préféré àdduna wërngal këpp. Messi laa lay jox Messi. <laughs> Lionel Messi. mooy sa joueur moo fi mën kay àdduna wër nga kër moo fi mën kan mooy sa waykat Sénégal su way nga kontaan nag naa ni naa ni xanaa sama sikarkat bi laa fi nekk sikarkat yëpp yëpp lépp woy la Landing Daaw Landing Daaw mooy kan mooy kan noonu mi ngi nii ndeysaan sikarkat la bu jëlee ba nongoloo nga ne nongoloo mii bi ba léegi bu jëlee baaw maal nga ne baaw maal moom simbu seek moom daal mooy loolu mbapat lu mu jël léegi mooy sa waykat waaw mooy sama waykat moom daal yàlla ko yàlla defal jàmm Eh, par la suite maanaam sa comédien préféré kan mu numbe la mu numbe kañ bu mag bi mooy sa comédien kooku kañ la exact non eh, on avance rak ji yaa ngi parcelle ah maa interview ci ah, sama gox question ma lay posé parcelle bokk ci fan moo la gën a ci Sénégal ban koñ ban gox ban quartier ban dëkk fan moo la gën a neex ci Sénégal ci Sénégal Touba Touba Touba Mbacke Darou Salam en tant que Baye Fall kay talibé Sine Fall Touba

ba yaakaar naa moom lañ naan Babylone ba dee. Babylone mooy fan. Babylone États-Unis Kaana ba Yous ba. foofoo gën a seer paas. États-Unis waaw da ngay rêvé dugg États-Unis. foofoo gën a seer paas foofu moo demee ba ñëw di nga xam ne courant du morom batterie te avion du daw si kaw dali. rek amar ma leen ma sama gars yi rakk ji nga liggéey tekki dal ci am alal ju lan nga ciy njëkk a def. ah sama am di jàmm yi ñu ngi yaakaar ci man bàyyi instant yii boobu mu xaw leen seen jéem yi même bu dul jëndee situation bi mais bu dee benn cinq pour cent sax mën naa ko jaayante incha allah. xam nga pour lu métti na ko waa dafa métti. war na sëñ Fallou te maa ngi lancé benn message tamit ñu dawal yërmande booy waa waaw yenn gars yi ñëw di wax si booy du ñaaw naan dañuy toog si miir bi affaire bi fii interview fii nii loolu amu fi nit mooy jigee feneen ñëw def lu muy def xam ga des fois da agressé feneen sax jël sa sac bon école bi nga ñëw fii nii léegi sànni sac bi si école bi xam nga ñu fa rekk foofu ne interview fekk booy dem am sa métier yàlla def na benn affaire ñun ñuy ànd ñëpp ay téer te ay taaw kon am na ñu yoo xam ne dañ ko war a réaliser xam nga nekkuñ si yenn caaxaan yi kon euh, mbër mi nga xëy un jour nii am nga benn baat ci réew ñu jële ko fi lan nga fi jële am na loo doon gis ci loo xam ne neexu neexu ma mënoo ci dara nga xëy un jour ñu ne la Boy Cissé am nga benn baat ci réew mi loolu leen ko fi ñu jëlee fi lan nga fi jëlee. boo ma mayoon ma wax ñett moom. benn benn rek. benn boo ñett moom naa borom ñaari tur yi moom. yàlla na yàlla jégal war na. borom ñaari dañ fee bëri. borom ñaari tur yi mooy feegi mooy lan. ma la xam nga bëgguma sax jaar si ma non mais jóg ma rek ne ma rek lii laa fiy jëlee. borom ñaar tur jigéen laa fiy jëlee. góor si tali di ñu jéem a financé si ay dañuy fay ay 4 4 ak yooyu ndax bu ñu gisee nga nekk xale xam nga xaw a yor benn forme bi rek mooy loolu gars yi xam nañ lu may wax bu baax duñu gaaxa waaw euh, par la suite dama naan rakk ji sa sa coow préféré la waaw moom ginaar moo gënal. Eh, ginaar moo la gënal loo am sa coow. ok d'accord kon loolu fii si nañu ko xamee noonu. Ah, euh, par la suite dama naan série série sénégalaise ban série mooy sa série préférée. laa doon seetaan. Jalika dañ ma koy tooñal sama waa koñ maîtresse d'un homme marié waaw waaw dama ma xaw ko noonu. moom mooy sa série par la suite euh, dama naan rek naka ji bi nga juddoo ba tey ma wax ban jour moo gën a neex ci àdduna boobu lan nga dund. jour moo gën a neex ci man moom mën naa lu may dégloo moom mooy màggal sëñ Fallou bu kere. màggal sëñ Fall Kazu Rajab boobu moom damay rax aajo moo la dàqal ci àdduna loo am ci àdduna buuru màggal Kazu Rajab dara gënul neexee boo ko sa sëriñ àjjana waaw man sëñ Fall mooy sama lépp ku may jàpp a Fall nga may jàppe ku nga bàyyi maa moom ndax moom la yàlla faale ku yàlla faale nga falu kon gars war a falu si kaw falu bi mooy lan dama war a gëm ne man damay nekk roi des arènes incha allah man loolu laa demee mais su ma jël décision naan damay bëre am benn port dem bitim réew nii rek na mu obtenir droit bi ma loolu ko indee nii nii incha allahu rabi bu neexee yàlla suñu borom ñu koy jëli ji waaw man laa gëm dañu bëre ba nekk roi des arènes incha allahu rabi ndax sama yaaram dafa sonn quoi yaay téeméer reer mi faran reer ndéki añ dafa metti quoi mooy loolu loolu dama ko si war a génnee te waaw ay locataire lañ tamit nii kon loolu war naa mën a jaane na ko yaay jaabu kër gaa nga nii papa maakaa ngi nii loolu moo nekk sama bopp saa nii ça c'est clair ça c'est clair de toute façon euh, xale nga mais waxi mag ngay wax instant bi euh,

waaw bëri na lool sax bëri na lool bëri booy mbër yi fi nekk. ay góoy yoo xam ne jàpp nga ni mais a jàppale bi. Nazaire moo la wax nii moom mooy jàpp mbër yi fii nii da ciy sonn ak suñuy yaay ju baax yi taata ba moom mënu ma sax si moom. waaw mënu ma nekk si moom sax di wax. dakk ji bi nga ba tey ji ma wax ak yow ban jour moo la gën a métti ci àdduna ak jour boobu ma gën a métti naa ne sama xarit la ba mu gaañu di moom

kan nga ya, ci rêvé eh, un jour adversité te génn seen diggante nga war a bëre ak moom. moo siy rêvé. naa nii nii nii. mbir nekk ca kaw a kaw. ci kaw a kaw a kaw. waaw da ngay rêvé un jour adversité te génn seen diggante nga war a talante ak moom. ah Balla Gaye 2 moom mu daan mbëru Parcelles. Balla ngay exemple moom moom daan ko rek loolu doy na roi des arènes Balla Gaye 2. Balla ngay waaw champion la ko waaw moom.

est que xam nga li lay yóbbu ci niveau bi Balla Gaye toll. waaw comme moom lu ko yóbbu rek gëm-gëm. waaw gëm yóbbu. waaw Balla dafa nekk xale. gëm lu muy def seen digër yi ñoom mun ay Sokosik ñoo fa nekkoon Bama Ndiaye les deux ay Elton ay Ponkal ñoo fa nekkoon. mais dafa gëmoon lu muy def ba pare yor si dudu mbër tamit yor yokku mbër nekk doomu mbër tamit ba pare mën lu muy def waaw ba pare nag mu dem ut ay ñaanam ñëw taxaw dëggal boobu suñu borom sutura boobu àgg fi mu àgg te yow tamit ñoom fu ñu àgg foofu nga bëgg a àgg incha allah rabbi boo gisee sa diggante ak yàlla di bëre di dem ay Amérique toog a teral ñii nii si làmb laa ko mën a amee li ngay rêvé mooy ñafe sa laaj ba nekk roi des arènes nekk numéro un dans l'arène incha allah rabbi

a pàqu ba maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm dañoo bàyyi seen i seen farisi ngi si suuf seen sareet yi ñu si suuf ñu ko bàyyi lépp comme ma leen jox dara mënu a la rek dañuy bàyyi lépp ñëw di sant ñëpp ma fi wax si lu rafet na ko yàlla suñu borom def mu nekk ci jàmm di ñaan tamit arrêté loolu ko waaw loolu du géem bi géej gi suñu dee bëri na trop te ñun loolu du suñu sago quoi yéenewuñu leen loolu tamit waaw mais ku nekk tamit sa fan fu mu fu mu lii rek fa ngay yem mais tamit jàppale jeunes yi nekk fii nii boo xar xolam moo si nekk da fii dafa metti mën a jaayante tamit jàppale jeunes yi nekk fii nii tamit bàyyi mooy loolu waaw jàppale leen bàyyi tamit jàppale tamit suñu laamu ji bàyyi mu ubbi sinon bi bàyyi bu kële mbër mbër bu fi yoroon avance instant yi reesal nga ko ba yaa ngi ay bor ay problème waaw nañu jàppale suñu papa li ñu ko laaj tamit gars yi bàyyi ko jàmm salaam liggéey liggéey président CNG bi ñu fal bi bees bi nii waaw yàlla defal ko jàmm ba liggéey mu bëgg di liggéey nii mu dugg si bisimilah rahmaan rahim yàlla motali ko lépp ba ci sëñ Fallou Mbacke loolu laa koy ñaan ñaanal suñu kër si ñoom bégaa yi waa interview bi yëpp parcelle ginnaaw yàlla suñu borom bàyyi naa lépp si loxo saa dabo sant sëñ Fallou santaat sëñ Fallou santaat sëñ Fallou Mbacke foofu ngay yem waaw sant sëñ Fallou moo xam naa ne foofu ngay ah, tëjee waaw sama gars yi gis ngeen de ni rek la fay demee ñoo woon fii ci euh, Parcelles euh, unité 8 ñëwoon seet ci euh, espoir bi mu ngi nii ah c'est comme j'ai l'habitude de dire sama gars yi xàmmee leen ko ràññee leen ki mooy Boy Cissé kii mooy Boy Cissé bu Parcelles bu unité 8 bëggatu ma mu sumeekoo nag taxaw ci géew ñu ne kii kan la mais mu sumeekoo taxaw ci géew dañ ne nee na mbëri nañ jël avance bi ñëw jàkkaarloog moom jël avance bi jàkkaarloog mbër mi di leen jox di daje ba